caisse d'avance bi teel na génn fii may waxe caisse d'avance bi génn na te loolu ndam lu rëy la ci organisation màggal ndax léegi-léegi danaan dem ba màggal gi des ay ñaar ñetti fan mu soog a génn léegi fii may waxee ministre bi lépp la diligenté ba lépp yemb na kon fi mu nekk li fi des mooy euh, laxasaayi tàmbali liggéey bi te loolu ci lañ nekk euh, ànd ci ak partenaires yi ak kilifa yi nekk ci dëkk bi ngir taxawu màggal gi ba màggal gi mucc ayib ci wàllu santé ak ci wàllu yëpp. Euh, centre de traitement yi dinañ ubbi centre de traitement ci Louké hôpitalu Louké ndax hôpitalu Louké xam nga su màggal gi tàmbalee euh, ñëw di indi malaat tuubaa day xaw a jafe te Louké waajoon na bay ubbi. waaye bi ñu ubbee centre de traitement wu tuubaa centre bi nekk centre bu am capacité moo xawoon Euh, tax lukkee xaw a euh, dallu tuuti le temps ñu xool euh, cas yi nu muy demee mais gis nañ ne ak màggal yi fokk ñu fexe di ubbi benn centre de traitement lukkee daanaka centre ba pare na bëgg nañ ko mettre en service ci màggal gi pour ñi nga xam ne dañu waroon ñëw ci centre de traitement bi ñu leen di faje foofu ñu ngi liggéey tamit ci prise en charge urgence yi ak cas grave yi loolu prévoir nañ ci ay mesures yu am solo

ñu ngi ci liggéey bi di am yaakaar rek ne nii ñu ko tàmbalee suñ ci wéyee yàlla mën na dogal ñu màggal te du bëri jafe-jafe. ñu seetloo ci réew mi yëpp gis nañ ne jàngoro ji mu ngi dellu ginnaaw loolu gis nañ ko ci dëkk yi ñu wër yëpp muy région yi nekk ci centre bi fi ñu gis ne mu ngi dellu ginnaaw mais euh, moo xaw a des tuuti mooy diggante Dakar ak zone sud bi ak tamit zone nord. fofu gis nañ ne quelques cas yi ñuy notifié ci zone yooyu lañ koy notifié mais suñu jàppee région centre yi gis nañ ne mbir mi mu ngi dellu ginnaaw bu baax ndax ay fan a ngi région yooyu kenn notifié wu ci cas ñu am yaakaar ne loolu day tekki ne mbas mi mu ngi dellu ginnaaw mais fii réserve bi ñuy émettre mooy que prélèvement yi doyul trop pour joxe réellement le reflet de cette situation mais néanmoins euh, ñu ngi yaakaar daal ni tendance boobu nga xam ñu ngi koy gis ci yeneen région yi moo am fii ci Diourbel ndax Diourbel boobaak léegi daanaka amuñu cas euh, loolu nag teewul ñu ngi gëna farlu ci taxawaay ndax tamit euh, ñàkk gis cas du épidémie bi jeex ñu ngi farlu ngir di yee nit ñi ak di ci taxaw pour dara bañ ñu bett ci kaw loolu lañu ñu fexe di liggéey ci wàllu màggal gi pour gën a yee nit ñi wax ak ñoom ci wàllu takk masque yi ak wàllu joxante loxo ñu bañ ko def ak wàllu utiliser gel hydroalcoolique yi ak lépp taxawaay daal bu ñu war a am ci moytu mbas mi jóge fi jéggiwaat dayoo. Matlaboul Fawzeyni malade yi fa nekkoon yëpp wér nañ fi mu nekk juróom-ñetti malade lañ am ñu nekk ci seeni kër nekk ay kaa yoo xam ne ay cas simple la. Euh, district bi nekk di leen toppatoo di saytu seen wér-gu-yaram te jàpp nañ sax balaa màggal gi ñooñu dinañu wér ah loolu nag mënuma ci wax dara ndax xam nga épidémie moom tànk jeexul mënoo wax ne kaadu am surtout que daje moom fu mu am rek am na ay risques waaye li ñu xam mooy ñun taxaw nañ ngir fexe loolu bu mu am dinañ ci def suñu kentalaayu kàttan dinañ xeex li ñu mën fexe ba lépp loo xam ne xam nañ ko wala mën nañ ko ngir taxawu nit ñi ngir loolu bañ am dinañ ci def suñu kentalaay kattan di boole nak, di sabab ak di ñaan yàlla dimbali ñu ñu bañ am kaa ñu ngi koy ñaan te dinañ ci sabab taxaw ci eh, di fexe daal ba du am